actu du jour ñu jukki leen li gën a fës ci biir internet bi dañu koy dooree rek ëttu yëglekaay bi di limametti point comme ginnaw rek ba mu génnee daal di xam ne kii di Youssouma Jigéen Ndour rek ak jaari Sow war nañoo sant rek bu baax a baax yàlla suñu borom ndaxte rek seen coow yi ñu amoon bañ naroon na rek rëmbee réseaux sociaux yi li leen ko xañ rek nekkul kenn rek ku dul euh, Ousmane Sonko ñu gis ne rek jamono ji rek moom la ñuy gën a waxtaane rek ci réseaux sociaux yi ginnaaw rek ba ñu ko jiiñee lii di viol ak ak menace de mort daal di jóge rek ci Adji mu di rek benn masseuse daal ko koy teg rek ci ndoddam ñu gis na nag mbir moomu rek mi ngi gën di wéy rek di lëmbee rek mim réew mu di ay coow rek ak ay manifestation yu doy waar rek daal di jóge rek ci mile mbir ba tax rek ëttu yëglekaay bi léegi daal di xam ne ne kii di Youssou Ndour rek ak Diary Sow nañu sant rek bu baax a baax yàlla suñu borom ndax rek Ousmane Sonko daal nay fay rek seen coow liñ naroon a am rek ci internet bi ñu wéy rek ba tey rek ci mbiru Ousmane Sonko ginnaaw rek boobee ba tey enquêteurs yi rek ñu ngi wéy di amal seen enquête ñu gis ne rek kii di Sidi Ahmed Mbaye nekk doomu responsable politique bu Benno Bokk Yaakaar moom rek moo daal di janoog rek enquêteurs yi dañoo gis ne rek moom Ahmed Mbaye moomu le moo daal di jël si rek Adji Sarr ci guddi googulee rek yëf yi di am ba tax rek ñu daal di koy woolu waaye ba mu ñëwee rek lam xamuñ sukkandikoo rek ci libération moom nee na Adji Sarr dafa nekk xaritam bu yàgg-yàgg loolee tax rek mu daal di koy euh, jël si loolee rek euh, Ahmed Mbaye daal di wax dalul benn yoon avocat wu Ousmane Sonko yi ginnaaw rek ba mu xam leen ne daal moom Adji Sarr dafa nekk xaritam waaye avocat yooyu lee nee nañ loolee nekkul leen rek lu dul ab complot daal di jëm rek ci seen leader bi lee di Ousmane Sonko. ba tey rek ci mbiru Ousmane Sonko la ñuy desandi ba tey ndax gis nañ ne rek boobee ba léegi ay manifestation yu taratar rek daal nañ koy nemmeeku woon rek ci région wu Dakar ak yeneen i région nekkee fii rek ci Sénégal ba tax rek démb ci àllarba ji kii di Ousmane Sonko daal di def rek génnam daal di dem seeti ñi nga xamante ni rek moo di militant wu Pastef yi la amee woon rek ay gaañu gaañu ndik altine ji rek ñu génn rek foofee ca hôpitalu Grand Yoff moom Ousmane Sonko nag daal di nay dem seeti leen daal leen di mastawu bu baax a baax rek ginnaaw rek ba ñenn ñi jotee li nga xamante ni rek moo di ay bal ñeneen ñi rek ay grenade yi lacrymogène daal leen sonaloon lool bañ jotoon leen a yóbbu rek ca hôpitalu Grand Yoff kii di Ousmane Sonko nag ni ki démb mu dem na leen seeti daal di saafonteeg ñoom rek ci jafe-jafe yi nga xamante ni rek ñu ngi koy dund jamono ji te kenn waralu ko kudul moom moo may rek di Ousmane Sonko ba tey rek ci affaire Ousmane Sonko gis nañ rek ki nga xamante ni rek moo di Moustapha Diakhaté daal di nañ naqarlu bu baax a baax violence boobee nga xamante ni bii rek am na ndiki 48 heures bii rek ñu daal di génn ndax nee na kii di Ousmane Sonko dañ ko protéger ngir loi bi nga xamante ni bii am na ko mu di immunité parlementaire am bi ko may rek mu daal di bañ a dem rek wuy ji mila mbir waaye moom rek nee na li ko naqari rek moo di policiers yi nga xamante ni bii rek dem nañ ah, ci kër rek kii di Ousmane Sonko ba waral rek rek manifestation boobu lee daal di am rek foofee ca cité kër góor gi moom nee na violence boobee rek daf ko naqarlu bu baax a baax ginnaaw rek ba ko invité rek ca RFM matin ndiki tey rek ci alxames ji di naqarlu police yi nga xamante ni dañoo dem rek foofee ca kër rek Ousmane Sonko ca cité kër góor gi ba tax rek violence boobu lee daal di fay juddoo ba tey rek ñu wéyee di ci coowul Ousmane Sonko immunité parlementaire am ba rek gis nañ ne ndiki tey rek ci alxames ji foofee ca l'assemblée national daal dinañuy amal rek ab dañ koy dindeem déet danañ ci amaat rek ay leeral ndiki suñu yeneen jotaayu xibaar waaye rek lañ mën a jàpp rek mooy ndiki tey jii daal bu ay 12 heures rek jotee ab réunion rek daal dina fay amee ngir rek xam ba xam dañ koy dindeem déet waaye rek force de l'ordre ya daal dinañuy commencé rek daal di protéger boobule lieu rek mu di a nationale lépp lu fa fasaar rek jëm rek ci l'immunité parlementaire Ousmane Sonko boobee dañ leen ko diktalaat ci suñu ni jotaayu xibaar ba tey eh, ci coowul Ousmane Sonko ci la ñuy daal di wéyandi rek eh, ba tey ndax gis nañ rek kii di Oustaz Modou Fall daal di ne rek wax ci coowul Ousmane Sonko loolee lam ca wax rek moo di nee na dafay conseiller rek ñi nga xamante ni rek moo di góor yi ñu gën a rek bàyyi xel bu baax a baax li ñuy def ndax nee na fii rek Sénégal jigéen ñi dañoo am faiblesse ci nit ku siiw ba tax rek lépp luñ mën a def ngir daaneel la dinañ ko def te nee na rek li gën a doy waar moo di jigéen ku ñu bëgg a daaneel rek dinañ la daaneel ba tax rek moom muy wax ne ñi nga xamante ni bii rek moo di góor ñi bay boo rek ñu gën a bàyyi xel ndax Sénégal rek dañoo amee faiblesse ci nit ku siiw ba tax rek ñu leen di maytu rek bu baax a baax daf ci baax ki nga xamante ni rek moo di moo Modou Fall moo daal di yëkkati rek yooyu kàddu ngeen xam ne ne daal moom nee na yàkkante bi nga xamante ni bii rek am na jamono ji uh, lu ko jaaxal la ci Sénégalais yi te nee na Sénégalais yi dañoo fiir dañoo xamatul rek seen dignité xamatuñ dara rek lépp luñ bëgg rek nekkul lenn lu dul xaalis waaye ak dëggu doxatuñ ci dara ki xam le loolu rek moo di oustaz euh, Modou Fall euh, ci Covid 19 la ñuy daal di addu gis nañ ne rek jamono ji rek ba tey mi ngi wéy rek di lembe mim réew ndaxte rek kaaya dafa daal di yokku lool ba tax rek démb rek ci conseil des ministres daal nañ fay xamle ne campagne de vaccination wu Covid bi danañ ko door ndiki fin du mois février 2021 bi ki nga xamante ni rek moo xamle loolu muy nekkul kenn ku dul chef de l' mu di président Macky Sall daal nay xamle ne boobulee campagne rek dinañ ko door waaye teewul nag ciblé nañ ñu nga xamante ni rek ñoom la ñuy njëkk vacciné euh, ci boobulee vaccin rek jëm ci xeexum jàngoro ji rek di euh, covid 19 yemu ca rek daal dinay àdduwaat ne nañu daal di gën a sàmmonteeg mesures yi kër docteur digle ndax jàngoro ji ba léegi mi ngi fii ba tey mi ngi wéy rek di lëmbee mille réew dañu koy daal di jeexalee rek benn ñaawteef bu ñu nemmeeku rek ca diwaanu Touba quartier ba ñuy wax rek jannatul maxwa benn dawalkatu charrette rek moom la ñu daal di fekk mu daal di rek juróomi benn bébé bu am ñaari at yu toftala juróom benn weer bu jigéen rek moom la daal di yóbbu ci benn bâtiment xale bi nag daf ko daal di simmi rek daanaka commencé rek daal di raay li nga xamante ni rek moo di ay partie intime am buñ sukkandikoo rek ci source a saret bi nag ay atam mi ngi toll ci fukki at ak juróom moo daal di def rek mi ci benn xale waaye rek yàlla daf ko daal di feeñal ba benn rek tante bébé bii rek daal di alerter rek voisin yi nga xamante ni rek moom la dëkkal waaye nag nag charité boobule dafa daal di tiir rek ba daw rek daal di fay sànni rek sareetam ba ca foofee rek ca jannatul maxwa waaye nag teewul moom waajile daal nañ koy jàpp ba defeere ko ndiki altine ji rek ñu génn par détournement de mineur ak pédophilie loolu la ko yoon rek daal di jàppee ba mu janoo nag ak enquêteur ya xamul benn yoon rek la muy daal di wax rek ci geste boobee nga xamante ni bi rek def na ko ci xale bu tuuti boobulee rek moom dal ba musimee rek tubéyam ja dafa commencé woon rek di a xale boobule am ñaari at yu toftal juróom benn weer lii rek moo fi gënoon a fës ami internet yi dig dajalay doon ba ëllëg ak jàmm